Yankoba mi nga xamante ni mooy jëwriñu fédération bi teg ci jëwriñ sëñ Bamba ak mbooloo mi topp seen ginnaaw yëpp ñu ngi jégal bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati ci kanamu mbooloo mi xanaa bëgg leen a leeral li nga xamante ni rek mooy liggéey bi fi jaar ci diggante bi ñu defee daaw journée xasida bi ba ren ji ci bisu journée xasida bi nga xamante ni moo dellusiwaat mu mel ni fédération bi def na fi liggéey yoo xamante ni liggéey yo taw féexe la lu ci mel ni euh, euh, bi ñu defee journée def nañ fi ziar bi nga xamante ni moom lañ ziare woon ci kanamu xalif général des mourides bi nga xamante ni moo fi nekkoon muy sëñ Sidi Mokhtar Mbacke di ñaan yal na yàlla yokk ay leeram te taas barkeem ziar bi nga xamante ni defoon nañ ko fa ñu ngi fa ziare woon lu tolloog 11 millions francs CFA moom lañ yóbbu woon bi daaw kon li ñuy soññe foofu itam xam naa ne danañ ci ñëw leneen li nga xamante ni toppaat na fi muy màggal Touba gi nga xamante ni defee nañ ko fi ci 2017 bi mu doonoon màggal goo xamante ni gu taw jaayante ci dox ci ni nga xamante ni moom lañ ci waroon a doxee leneen li nga xamante ni moo toppaat mooy kër sëñ Touba gi nga xamante ni jënd nañ ko fii ci réew mi mu mel ni ñu ngi ko jëndee euh, soixante-deux mille dollars ñu xam ni kon lool addiya ju takku la yoo xamante ni murid yi dong ñoom ñoo ko jaayante def ko fii ci biir réew mi kon kër sëñ Touba googu itam euh, fédération bi jënd na ko leneen li nga xamante ni moom moo fi toppaat muy assemblée générale bi nga xamante ni def nañ ko le 4 avril bi weesu euh, bi ñu defee assemblée boobu dajale nañ fi ci àddiya un million cent mille pesos murid di dajale nañ ko fii ci biir euh, capital bi mu jëm ci wàllu fédération bi itam bu loolu weesoo ñu jëm ci wàllu social bi nga xamante ni itam jaar na fi muy sunu mbokk mi nga xamante ni dafa tawatoon nekk sunu biir mu mel ni biñ koy laajal ñun ñëpp ku ci ne def na ci àddiyam mu mel ni yàlla def na opération bi nga xamante ni moom lañ ko doon defal yàlla def na opéré nañ ko ci jàmm ba lépp jàll na ci jàmm fédération bi itam taxaw na ci taxawaay bu rafet boo xamante ni li li mu ci joxe mu ngi toll ci deux cent soixante deux mille pesos ñu yëkkati ko jox ko mbokkum taalibe moom ngir mu nekk ci li nga xamante ni mooy wàllu médication kon loolu itam fédération bi jàllale na ko mu mel ni bu ñu xoolee loolu lépp noppee ci li nga xamante ni moo fi des ci addiya ci fédération bi mu ngi toll ci cinquante mille cinq cent soixante treize dollars cent seize mille pesos moom moo fi ci keesu li nga xamante ni mooy fédération bi leneen li nga xamante ni moom la ñuy soññe mu mel ni buñ gisee ne fédération bi kat defoon na daaw euh, ziar général onze millions pesos onze millions francs CFA ñuy saku ci mbooloo mi ak bépp jëwrin boo xamante ni yaa ngi ci fédération bi ñu waajal li nga xamante ni moom mooy ziar bi ren ndax ziar bi incha allahu rabbi comme niñ ko daan defee saa su ne muy ginnaaw tabaski su ma jumul kon ñu ngi sàkku ci mbooloo mi képp koo xamante ni jëwriñ nga te nekk ci fédération bi wala ngay mbooloo te tënkuwoo ci daayira lépp loo xamante ni addiye ju jëm ci xalif général la ñu ngi sàkku nga indi ko ci ña nga xamante ni fa lañ ko war a yóbbu ku ci mel ni ñoom Talla Sall ñoom Maam Xaas ak ñi nga xamante ni ñoo yor wàll liggéey boobu leneen li nga xamante ni moom la ñuy soññ muy kër sëñ Tuubaa gi nga xamante ni mu mel ni jënd nañ ko ba pare waaye li ci war moom moo ci des mooy tabax bi comme ni ko jëwriñ di nag soññee di sàkku mbooloo mi ñu gën a soññantewaat ci li nga xamante ni mooy kër sëñ Touba gi ndax amuñu lu gën a kawe ci kaw suuf fii ci biir Argentine lu du kër sëñ Touba googu kon nañ leen ko gën a taxawal bu baax a baax képp koo xamante ni yor nga addi ju ci jëm boo dikkee ci jëwriñ yi incha allahu rabbi ngeen mën leen ko jox incha allah kon loolu moom moo doon li nga xamante ni moom lañ fi waroon a soññi ñu ngi tuubal mbooloo mi yëpp nag di jégul ñëpp di di di leen wax di ki nga xamante ni moom lañ moo moo moo moo moo doon amoon cas social boobu muy sëñ Babacar Sow mu ngi sant mbooloo mi yëpp war na sëñ Tuubaa bu sañoon day dikk ba ci mbooloo mi ku ci ne mu ñëw ba ci yow ne la jàpp loxo sant la bu baax a baax sant na mbooloo mi yëpp ndax taxu ngeen ko ba yàlla mayaat ko mu am kàttan bu baax a baax ñu ngi sàkku itam ci mbooloo mi ñu koy ñaanal bu baax a baax ba yàlla gën koo yëkkati ba mu ñëwaat ci sunu biir di ànd ak ñun liggéey bi ndax lii ma yor nii moom moo ko yoroon ma topp ci moom kon nag nga ko ñëpp ñaanal rek mu dellusiwaat ci biir ànd ak liggéey boobu kon daal loolu moom moo doonoon kàddu yi nga xamante ni moom lañ doon soññee di di di jéggalu ñëpp nag di sant ñëpp province yi jëwrin yëpp ñëw nañu sant nañ ñëpp barke Sëñ Tuubaa ak mbooloo yi nga xamante ni ñoom ñoo topp seen ginnaaw xam naa bu ñu paree foofu la ñuy wàcc suñuy kàddu